secteur élevage petit ci Sénégal rawatina bu xaru laadum mi nek na secteur bu nek en plein essor waye tamit très prisé terewul yi tamit bari na ay jafé jafé yo xamanteni ni ñi nga xamanteni ñoy yëngu ci biir secteur bi ñu ngi koy jànkoonte

ñun ak ñoom ñoo yem en fait c'est ça quoi parce que ay être lañ te nit ki yaakaar naa ni que xar yi boo leen casé di leen toppatoo di leen jox li li li war si ñoom bu ñu feebaree di nga leen saytu et boo nekkee njaboot di nga xam dara c'est ça daa mel ni rek comme si que ñu njaboot lañu. li waral bi les sentiments de familiarité nag en général nekk processus bi nga xamante ni moom la éleveurs di daj ci yarum laadum bi ndax yar bi la race nekkul lu yomb. xar ordinaire yi peut-être ñoom ñoo gën a moins dépensant et tout parce que ñoom ñoo. Euh, en général ñoom ñoo gën a donc par rapport à xar xam nga tu dépenses beaucoup sur les les médicaments et tout xam nga ba tax na instant bi elles sont fragiles Dal, je dirais ils sont fragiles. xar fini nek dafa set fi ñu di duggal ci ay appartement yu normal lay doon Amana sax amna na si ñoo fi seen xar nek mo gëna a fi seen fi seen topoto bobu muy lati taxna na itamit jigen ñi walu jëm ci secteur bobu même bu fekkee ni sax ñu ngi ci rencontrer énormément de difficultés. amna yenn métier yu bari dañu jël réserver ko pour góor mais tamit yaru xal dama ne pour man góor mën na yar comme jigen mën na yar. parce que dès l'instant que xar bi limu soxla yow xam nga ko pour mu aman affaire toppatoo jigéen moo ko a mën dès l'instant yaa ngi ci kër ga di nga xam à chaque fois à chaque instant lan mo ne ci xar bi lu muy soxla da ngay dem ba mu am ben affection ce digënté ak jur bi nga yar xari yi ngeen fi gis nak à la portée de tout le monde ndax ay prix exorbitant C'est fi vrai business la vente sax nak objectif principal wa xar bi mën nañ ko 30 millions 30 millions yi ngi koy jaayé parce que xar bi exemple boko jëne 30 millions at bi yépp mu am presque 6 dom wala 7 dom dom bu nekk mën nga ko jaayé exemple 2 millions wala 2 millions 2 millions 600 nak yu dakul même pas 3 ans 4 ans man na ju 50 millions moo tax nga gis ñu naan xar bi 30 mille lañ ko jëndee bii 19 mille wala bii li lañ ko jaayee ay moyens yu bëri la recourir ngir tax mën a yar xar yi le ba tax na sax ñuy sàkku ci ñi nga xamante ni ñooy autorité yi ñu namm rek mooy relever li nga xam ne mooy secteur élevage xar yi li ñu lekk rek sax fin du mois boo ko calculé war na mën a jege 500 mille wala 800 mille li ñu lekk rek war na mën a jege 500 mille wala 800 mille secteur élevage lii daf ko daf ko gën a yóbbu niveau parce que euh, xar bi du xar bu ñu jënd pour lekk d'accord nag war nga ci mën a lekk war nga ci mën a tabaski te am na ci ñoo xam dañuy yar maal ba màgg ñu tabaski ko mais dafa neexul ci xol yar benn xar mu xam la nekk ak yow lu at yu yàgg nga xëy rek rendi ko dafa rafetul. lu jar a bàyyi xel la nag ndax passion ak motivation bi nga xamante ni moom la ñuy nemmeeku ci seen diggante ak xar yi ba tax na sax léeg-léeg xar yi vraie entreprise lay doon ci ñoom. waaye tamit élevage la yi nekk na ab solution ci réinsertion wu yenn émigré yi ndax ñu ci ëpp ci la ñuy investir te ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax lii la ñu leen ni loona ci xibaaru bés bi fi ci Totem Actu mooy leen rek di ñu suivre ci suñu ay chaîne YouTube Instagram Facebook ak Twitter ci Totem Actu waaye itam ci suñu site internet www.totemactu.com